محمد ومن ak ci turu ay waajuram di sëriñ Mbacke Faty Sylla mi nga xam ne ni moo fi nekkal sëriñ Daaru Xasan di sant bu baax a baax ci teewaay bi nga xam ne ni moom nga teew fii te kenn ku ne xam sa yitte ci sa digganteeg mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yi ay sa yitte ci digganteeg xalifa bi di sëriñ Sidi Moxtaar yàlla na fi yàgg te wér ci yan bi nga xam ne nii e, sedd na la ko ci li ko sëriñ Touba yan mu sédd la ca cër bu diis boo xam ne fépp foo xam ne nii teew nga fa ñooña mën nañoo waat na pësteef ak bay yitte moo tax nga tee fa waaye sa sa jot mayu la loolu kon sëñ Cheikh Ibrahima nee na mi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne daa nga ko jëf ci kër yi kër gi bi fi waajuram di nekk ak jëf yi nga xam ne jëf nga ko ginnaaw waajuram te bis bii nga ñëw fii firnde la ci loolu ndax bi fi waajuram jógee léegi di suñu waajur màggal gi mooy di màggalu suñu dara mooy gi fi njëkk a ñëw yàlla dogal nga ñëw teew fi te moom mi ci jëmmam sax day wax ne ma ne xam na sa yitte bu baax baax ba jàppoon na ne da nga yebal ndaw te koo fi yebaloon rek de ca waa kër ga mu doy sëkk kon nag sa teewaay bi lim ñuy feddale ci ñun rek mooy sa pësteef ak ñor gi nga xam ne nii Serigne Touba ñor na la ko ba lépp loo xam ne nii mas naa laale ci Serigne Touba nga am ca yëg-yëg bu wér a di seexi Serigne Touba yi ak njabootu Serigne Touba gi ñu ngi lay ñaanal ci barke Serigne Touba ak barke borom bis bii Serigne Darou Hassan. nga xam ne nii Serigne Touba dana ko woon yow kat sa mboolem li ngay jëf sa digganteeg sa borom de rafet na ba mel na saw tur te loolu ma ngi ko waxoon Serigne Omar Diop Mbacke bi mu koy bind benn leetar bind ca suuf ne ko balix salaam yi ilaa jaalika la si fi'luhu ka ismihi te euh, aw turam mooy alxasan kon ñu koy ñaan ci bis bi lépp loo xam ne nii sa euh, mag ju baax ji yaakaar ji am ci yow. suñu borom subhaana taala àggale ko ba àggale ko lu kawe njortam lépp loo xam ne tamit taalibe yi yaakaar nañ ko ci yow suñu borom subhaana taala àggale la ko ba ko sa bopp waaye yow mi nga xam ne yaa gën a xam sa bopp gën a xam li nga bëgg tamit lépp li nga xam ne bëgg nga ko sa fas ko ba koo liggéeyal sa maam ju tedd ja Sëriñ Tuubaa suñu borom subhaana taala kàttanal la tëbb bula ak wér tëbb bula maanaam lépp loo xam ne nii gàllankoor la suñu borom teqale la ak moom lépp loo xam ne daf lay jàppandal liggéey bi suñu borom boole la ak moom ba liggéey ko ni nga ko bëgg a liggéeyee ci barke Serigne Touba radiyallahu anhu barke Cheikh Darou Assane wasalaamu aleykum wa taala wa من